Gambian, or should I say Gambians at home and abroad, uh, of course, uh, are in somber mood over the uh, killing of Mort Lamin Sise, who was reported shot by police in Georgia, United States, on Saturday. Now, the Georgia uh, Bureau of Investigation has been called to investigate a police shooting that left one person dead. Uh, the Chronicle Online uh, reported on Sunday that Gambians in the United States uh, are working on acquiring recorded videos to ascertain the police claim. Now, the late Sise is said to be on the is said to be the son of Laye Sise, a UN diplomat who hailed from Kudan, a village in the Central River region. Well, basically, um, like I said, it's a very sad um, story there for, for Gambians over the weekend, uh, of course, on the killing of Mor Lamine Cissé, uh, a Gambian based in the United States. Uh, mu nekk uh, li nga xamante ne lu métti léegi léegi uh, ñu ngi ko doon wax mu ngi noonu moom Mohamed Lamine Cissé foofu ci Amérique lañ dal di ko rey ci ci xibaar bi nuñ ko jotee ci weekend bi mu nekk nag li nga xamante ne mooy lu métti Mor Niang Euh, xam naa nañ dellusiwaat sax tamit ci loolu waaye Amérique rëy nit ñi bëri nañ waaye surtout ñi nga xamante ne mooy nit ñi ñuuli euh, unfortunately Gambien bokk ci ci ci li nga xamante ne mooy ci gannaaw bi nga xamante Amérique seen américaine yu bëri génn nañ di wane seen naxar ak seen mer euh, lu ñu reyee li nga xamante ne mooy benn nit ku ñuul tamit loolu mu dem viral àdduna ci yëpp mer tey lan ngay indi ci li nga xamante ne mooy xew-xew bi nga xamante ne xew na foofu Euh, ci Amérique ñu rey ci Mor Lamine Cissé mu nekk li nga xamante ne Gambien si bëri tamit ñu ngi fu mu nekk nii Amérique ñu ngi liggéey fexe ñu xam exactly lan moo xew ak lan moo waral moom ñu rey ko ñu fetal ko mu dee. dañ koy ñaawlu comme ne ko àddina bi yëpp ñaawloo. Mhm. te nekkoon ne Mor Lamine Cissé rek mooy number one. Mhm. soo ko doon compter tey nekk na lu bari loo xam ne yàgg na happen in Amérique. te ñoom ñu jël loolu def ko seen mind toujours si nit ñuul yi waaye ñu Amérique seen bopp ñoo. mënuma understand lan moo tax ñi bañ nit ku ñuul te foog naa loolu waroon a jeex si ñoom bi ñu demee ba nit ku ñuul jiite leen am fa ñaari taam di Barack Obama loolu waroon a génne si seen xol yi euh, résiste bu nekk si ñoom pour bañ nit ku ñuul ki because yow ki nga bañ ñëwoon a jiite la ñaari taam so loolu rek waroon na mun a jeexal loolu waaye lu jëfe lu na xaree génne la in America all the time da nga gis ñi troxal fa nit yi ñuul yi. rey leen fa te nag ñooñu dafa nekk ñu ngi xam ne dañ fa am right juddoo fa ba ñëw nekk fa président comme ni ma ko waxee si gannaaw kon lu lu ñaawlu la waaye ndax niñ bëggee investigation bi am si lu leer ndax dina ko amee wala dina leeree noonu because yi si am yëpp kenn gisul fu mu dee mujj fu mu dee mujj yëpp mooy ne kenn du xam naka la bii rek leen gis ne sax you know bu ko nit ñi génnee naxarlu ko. tass dafa fan naa ne si rek si monde bi rek ñaar am ci mhm. yo xamna ni adna bi yep ko nek du ñaawlu te li problème bi investiguer bi di dem mujj fen fu nit xam bi len gisagum ñu dakh ay police nit yi ñu for wat ñoñu wala wat kooku noonu nga mom len gis ci vidéo bi mu ngi ko oree mu nek lo adna bi den ko ñaawlu te UN ñi nga xam ne ni dañoo set saydu ak ak yele fi domar bi fofu nek sen makan ñi wara set di sitan li li di fa am di fa amat loolu nek na lu nit ñi ñaawlu te si nek si rew Afrique yi la am wala ci yeneen rew taxaway buñ ci dé am pour force government boobu mu ñëw def ci investigation bu leer force government boobu mu teg daan ñu noonu def ko ak human rights yi ex président yi ni ñu leen di sonalee te loolu lu gën a bon lu ex président yi di def in Africa ñoom ñu ñu ngee gis seen doom yi di ko def te UN foofu la màkkaanam ne waaye amuñ si benn taxawaay kon tam ñun war nañ seetaat suñu bopp xam ne dëgg dëgg ñi nekkul di ñu jàppale waaye dañ bëgg a seet ñoom leen ne ku leen neex ñi caw ku yar bàyyi ñu leen des so jàngat boobu laa si am te askan bi ñaawlu nañ ko àdduna bi ñaawlu nañ ko noonu àdduna bi ñaawloo ko man tam noonu laa ko ñaawloo te Gambien si noonu leen ko ñaawloo am si naxar bu baax a baax li si des mooy ñaanal njabootam ñaanal ko moom yàlla fa mu dem mu gënal ko fu mu jógee lu si des yàlla yàlla rafetal ko daal waaye lu ñaaw la la te condamné waaw exactly ci loolu sax ci li ngay wax foofu sax xam naa ne euh, nañ ñëw sax wax tamit ci ci ci George Floyd xam naa ne mhm. kooku tamit liñ ko reyee tax na kon fipp bi ngay wax ak naxarlu bi adduna bi wane ci loolu waaye mhm. euh, ñu gis loolu mu xew euh, biir Amérique ay police yi nga xamante ni ñu ko reyee vidéo bi ñëpp gis nañ ko mhm. loolu bu mu xewee daanaka four days later ñu gis Gambien tamit loolu dafa mel ni jikko la wala dañ ko baaxoo parce que tamit Amérique ñëpp xamee leen ci démocratie démocratie yi ñoom ñoo ko dee eh, ganab you know promo di wax ne mm-hmm. àdduna si yëpp dañu war a dox si loolu tey buñ gisee loolu di xew ci Amérique est-ce que foog loo ne tamit nit ñu war nañoo seetaat ndax lii jikko la wala dafa sax si ñoom tamit mun naa wax ne jikko la bu ko su luy am amaat jikko la te ñoom ñuy oote ne foofu la démocratie samp bu baax te kon ñun démocratie bi ñun Afrique soxlawuñ ko démocratie bu nga xam ne dafa am xeet wala der boo bu la neexut heure bu la neexee rey ko te ki koo rey mooy ku amee luwaay ku nga xam ne ne si kër moo war a aar nit ñi toujours kooku moom la gis mu rey nit ku ñuul si rey maa tey rey bu nga xam ne nii def na li rey maa tey reyu soxor mm-hmm. ba gis nga nu yàlla weeree rey boobu dëggaat si kaw baat nit bu mu dee wala bali fetal nit mu dee dañ ko gisut feneen Amérique rek lañ dee gis ñi def ko fa nit yi ñuul te nit yi ñuul yi leen ko dee gën a gis ñi ko def in Amérique te ñi am fa raay dëkk fa juddoo fa te seen démba lu ko leeral seen lu leeral tey Amérique. nit yi ñuul démb ñoo tax Amérique tey nekk fu mu nekk am lu mu am. waaye ñoom fan naa loolu moo naxari si seen xol be ñu bëgg a génne loolu te loolu nekkatul leen mën a génne already nit ku ñuul ñoo dafa jiite leen si ñaari mandit ñaari taam yu nga xam ne mënuñ si dara. kon loolu dafa war a génn seen. xol exactly exactly loolu mu nekk lu doy waar. Mm-hmm. Mariam lal nga ci mën a indi ci li nga xamante ne mooy ci sa analyse si ci euh, yëf yi nu mu xewee ak tamit euh, ba gis te Gambien tamit bokk ci. Euh, tey tamit ñu gis Gambien yu nekk Amérique ñu ngi am benn taxawaay bi nga xamante ne ñu ngi ko bëgg a taxawee pour fexe li ci lekk rek mu leer te Gambien si tamit understand nañ fii ñu ngi sax euh, am na ñeneen ñu nga xamante ne ñu ngi wax ne yëf ñu leeral ko ndax ñu ngi war a dem bëgg nañoo def peaceful protest ak mm-hmm. euh, tamit ñoom bu na leen Donald Trump nu mu taxawee ci yëf yi. waaw Amadou am Amérique dafa nekk xam ne black lives doesn't matter um, um, because ñoom dañ dee def lu nga xam ne dañ dee oote démocratie oote human rights oote everything te ñoom duñ ko dee defal towards black lives comme ñoom seen démocratie ba mel si white lives foofu la em because ñoom seetlu ko rek an American citizen su nekkee Africa fii nii nga fexe ba nga ba comme anything mu happen si loolu dañ dee teg a proper stand bu nga xam ne dañoo wane ne this is an American citizen especially if it's a white person noonu lañ ko dee taxawee dañ dee taxaw ne you are an American citizen so why not ñu stand loolu because kii sax I think he is also an American citizen he also have an American citizenship so ñoom it's a segregational human rights defense loolu la gars yi dee def seen defense if you are not white you are not part of the human rights rules you every time daanaka every month a black person will be killed in America te dara du si génn dañoo wax ne dañ daxa uh, that uh, policeman. wala that soldier wala whatever. there was this riot bu happen on um, last year Bori Junior in America it was during the raining season so si biir riot bi uh, black a white man ñu ngi wane ni si vidéo bi black man bi mu ngi taxaw mu ngi bokk si protest bi so white man bi daf ko doxee gannaaw ñëw rek jëm ko paaka si put si fii. so it was a free case. démb maa ngi seetaan sax benn benn gouverneur foofu ci boobu noonu moo nekk ne ñu ne. waaw ñi doon daan raayot neen ñoo doon xeex. so when the video got viral. Mhm. so comme after case bi dafa niil. waaw loolu laa sax because maa ngi seetaan démb benn gouverneur I don't know is it California or fan la mu ngi doon lim ay cases yi nga xamante ne about. 20 xaw ma 2000 1998 or 99. Mhm. ba 2020 yi nga xamante ne ñu ngay rey. Mhm. Uh, ay black americans uh, african americans. Mhm. te te dara du ci génn. Uh, tey loolu mu nekk la doy waar pour ñu jeexal rek balaa ñoo continuer moon ñam because xam naa nañ ci ñëwaat. ndax dañoo wax tamit ci ci ci George Floyd moom tamit nuñ ko reyee foofu ci America um, tey. Modou Lamine Cissé nekk Gambien bu dee Gambien American la whatever waaye Gambien la. Mhm. tey euh, lan ñu war a séntu ci nguur gi ndax mun nañoo dégg ñu génnee ci bataaxal wax ci. parce que lii bu fekkoon ne doomi américain la waxuma la ñaari fan waaye benn fan américain nañ ci doon wax for exemple tey euh, ñaari Gambian américain time jàmme deewoon nañ fi américain dañ ci toppa mhm. fii lañ téye nguur gi fii ci porox ñu foog ñu leeral yëf yi mhm. ba tey sax ñu ngi ci bàyyeeguñ affaire yi loolu bokk na ci investigation yi TRRC def lan lañ war a sentu ci nguur Gambie su kees yu mel ni ndax foog nga ne nañ ci mun a am luñ ci wax pour Amérique nguur gi tamit jaf si dara leeral yëf yi la dara bar ci dara bañ cee lëndem taxawaay bu ma sëg donc dina ndax dinañ ci am ndam duñ ko si am bot war nañ see wane seen taxawaay léegi-léegi la ambassade bu fa nekk bu nekk amee US gis ne am na am na taxawaay bu am solo boo xam ne war na ko see taxaw pour gis ne lii dafa war a leer te dafa war a dakk second li mooy ne Gambie am na ban dëkk leen fi gis ñi doon toroxal ay muslim ñu jog si taxaw si ba gis ni mayaama so gis nga ku mun loolu nag nga war a mën nga mën a taxaw yow tam sa sa doomi dëkk war naa leen am na yeneen yeneen ak yeneen yu nga xam ne mu ngi xew si si ñi nga toroxal doomi africaine si doomi Gambien si si biti te dégguñu làmmiñ ñu nguur jog si te bii nag dañ si war a taxaw mu nekk exemple ñu jógee dem taxaw si bële ba yàlla may leen si ndam bii moo leen si gën a war bii moo leen gën a nekk si seen digg bopp pour ñu dox si taxaw si mën gis ne nonsense yi dina stop because lii I can call this nonsense because naka ngaa mun a tiimee nii kere nga ñëw fetal ko si free amuloo dara loo wax after that kees boobu dafaa ñëw dakk kenn dootu ko dégg kon nag réew mi wala nguur gi ñoom am nañ si big responsibility mooy lan gis ne taxaw ne si ba gis ne am na sax lu ñu presse bu ñu war a jox euh, American government bi gis ne ñoom lii dañ ko ñaawlu te rafetluñ ko dem UN dem ci human rights ay aussi xam foofu la nekk international court criminal court bi yëpp foofu la nekk ba pare ñoom ñoom they are the best criminal ñoom ñooy ndey criminal ñoom sax bokkuñ ci foofu Amérique bokkuñ ci sax waa gis nga ko soo kon lii dañ ko war a ñaawlu Gambia government bi war na koo ñaawlu bu baax a baax a baax officiel yi <laughs> ba pare itam laajte si ak leeral mm-hmm. na ñoom ñu ngi koo ñaawlu leeral googu ko si